wala sa julli yàlla taxul wala sa julli baaxul su yowmal qiyaamee yàlla danaan leen julli leen wax am na lu ma la waxoon nag noon naa la feer buñ teg sama ndong mu wàcc ba samay ndëgg ñu ñu suude ko ndax danaa mën a sëgg déedéet képp ku sa julli baaxuloon doo mën a julli ku doon jullit yàlla taxul doo mën a julli ku masula julli doo julli yàlla kenn du ko nax nit la ñuy nax xam nga xam nga ndooy dangay ànd ak bugaan mu di la jox ci wërsëgam nga naan ko yaa fi nekk man yow laa àndal man bugaan laa bëgg bugaan la mu amoon jeex na nga bàyyi ko dem topp ndooy wax ko la nga waxoon bugaan xanaa yow xam nga ne wërsëga la tax a jóg mais doo nit ku dëggu doo nit ku sel xam nga man dafa am benn bàyyi ma bu ma neex bu ñoo tuddee xaj xaj neex na ma parce que alquran boo demee ci asaabul kafi buñ nee xamsatun saadisuum kalbuum seetal xaj bi yàlla di koy tudd gis nga asaabul kafi suñuy juróomi nit baa ñeenti nit baa juróom-ñaari nit sooy defar secret bi di ko bindal xale buy jooy wala nga di ko bindal ko bëgg a tukki wala nga di ci faj ko feebar boo ca boolewul turu xaj ba ñaan gi du nangu nit ñi nga bind bàyyi xaj bi dara du dox te xaj baa ngi tudd xit miir seetal loolu ci nga xamee ni xaj du caaxaan xaj baa ngi tudd xit miir il faut nga bind seen tur bind xitmiir xam nga lu tax ndooy moo toogoon ci buntu xuntuma di garde waa xuntumi yàlla def ko forme gaynde mu ni nii xulli bët yi ku ne tëll ba xër ñett ne wuy yënguwul la dal waa xuntuma moo ko dal jeexal nañu bay laa macha allah ba mu neexee yàlla leen yëkkati ñu jóg xaj ba jóg moo tax lépp looy def ci turu ña nekkoon ci xuntuma soo bindee seeni tur yow mii di ñaanalaati lay wax yow mii li tax sa asaabul ka fi nanguwul dañ cee boolewul xaj bi boole ko ci yow mii di ñaanalaati lay boole ko ci xit miir la tudd xoolandooy nga bind xaaj bugaan Ahmed Aydara bind Mansour Diop bind euh, Simer bind euh, Lengs bind euh, Saliou ba ñépp mat ñu ne la gannaaw bindoo rési bi ñaan bi du nangu seetal li il faut boo paree ci ñi nga bind rési nga bind lu toll ni nit ni mu màggee nga bàyyi xaj bindoo ko sa ñaan nanguwul ci ngay xame ne yàlla jaam bu nekk la mu la may xaj dafa gore euh, nga baal ma saaliw foog nga toog est-ce que xaj nga fi ah, tudd nga xaj léegi loo ci man seetal doon na fi xaj léegi xaj dafa xajoo li ko boroom jox ceeb bi mu ko tibbal jox ko da ko lekk martuñam dem tëdd dem ca mbalkaam mën naan martuñam dem tëdd muus nag mooy ñëw ne la man ma ceeb lekkuma cere jox ma ci jën yi bu dee ndawal mu ne jox ma ci ndawal gi du ma lekk li waaye xam nga lu tax muus baax moom it fu mu ne du fa ne muus ndoy nekk jinne du fa ne abu hurayrata tuddul abu hurayrata abdurahman la tudd daa bëri woon ay muus yonent bi di ko tuddee borom muus yi far turu yonent bi moo sax ma jox la tegtal boo ko gëmee dof ñeme na muus wax leen dafa muus jubuwuñu dof buy seen muus di ko sànni xeer parce que rab yee tax xaj dafa gore soo demee ci téere bu ñuy wax duratul xariida kooku pour oustaz la man zanna annahu xayrun min al fal kël bu xayrun minhu yeneen tubee ko nee na léegi-léegi nit defe ne moo gën xaj far xaj gën ko ndax ngor gi ci xaj nekkul ci moom série gi ci xaj nekkul ci moom maandu gi ci xaj nekkul ci moom ndooy dama lay laaj mas ngaa gis ku am xaj di yi ñëw sa kër fekk fa xajam jamais xaj du bàyyi kër borom du bàyyi géttu borom du foo ko gis lu mbooloo bëri bëri xaj baa ngi ci gannaaw borom su demee mu dem su wàññi mu wàññi bu ñibbee mu ñibbi loo ko jox ci lekk xajoo na ko moo tax ñu tuddee ko xaj dafa xajoo lañ ko jox loo ko jox rek baax na am na nit ñoo xam ne xaja leen gën fuuf geenu xaj sax leen gën du ñu nitu dara ndax amuñu kóllëre nit day am kóllëre nit day fonk kàddoom nit day fonk boppam nit day am personnalité nit dafay am dignité waxuma sax bu juree njaboot mais bu jurul kenn bàyyil xel sa ëllëg xoolal xaj bi ci sa kër gi waxtu woo yegsee mu jóg wër la dama koy nettali bi may tabax benn chantier benn pël buy sàmm ñëw ci sama wet foofu mu ñëw toog xaj bi ñëw tëdd ci wetam may waxtaan ci xaj nag ni mu baaxee ni mu amee kóllëre ni mu dëggoo ni mu doyloo ma ne ko doyloo lañ ko tuddee xajoo ku xajoo mooy ko doyloo léeg-léeg kaar bi nga dugg ñu ne buuxante ne sa waay xaj nga nga ne xaj naa donc tudd nga xaj mooy ko doylu may wax nag ci xaj ni mu mel ba ci asxaabul kaf mu ne ma sa kaay dama yóbbu sama nag yi tuubaa tuul bàyyi leen fa ak xaj bi mu di leen sàmm nee ma ñibbisi si Thiès mi dina faal mu ne ma toog ay fande dew ma ca gétt ga nee ma toog gis xaj bu ñëw daw ba ci kër gi daje ma ne fóon ma di ma wër mel ni koy jooy ndax daf ma gisul mu di ma wër si ba xam lu xew xaj laa wax xaj pël bee ma ko ma xaj baa ngi nii seetal kóllëre gu xaj am ba du bàyyi borom bu boroom lekkee mu lekk bu lekkul mu muñ xaj du xaaraan xaj du topp kenn xaj doo ko fekk ci këru kenn yow ngay nite ki noppom dofoo dara dalol ngay génn ci li nga nekkoon xam nga ne gore wuloo xajale gën foofu am na nit ñu xaj gën foofu laaw xaj man zanna annahu xayrun min al kalbi fal kalbu minu ku njort ne yaa gën xaj xajale gën ndax attitude yi ci xaj jikko yi ci xaj ku seet Iran nekku ca parce que xaj du trahir Iran day trahir xaj du du la bàyyi ànd ak keneen te nit da koy def moo tax jikko ji ci xaj beneen affaire la moo tax alquran tudd ko wa kalbuhum saaminuhum soo demee ci ashaabul kahfi ndoy bindal seeni tur ba mu jeex ngeen a takkalal sa doom yàlla ne la des na de soo indiwul turu xaj ba du dem nga indi xit miir ñaan doog a nangu soo ca bindul xidmiir buy dem ñu di ko waññi sikk nekku ci moom miy tukki kon war ngaa xam ne xaj bu baax la ay ca bu suba coort incha allah bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.